بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل الرضوان والتمكين وعلى جميع من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين سرين بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo لي نيو تي تورو مبولو مي في تيو teew di ndax ñoom ñëpp ay sëriñ daara lañu di liggéey ci téere bi aussi yéene jeexal seenug dund ci jàng alxuraan ak di ko jàngale ñoom ñëpp itam sag njaboot lañu ndax ay taalibey sëriñ tuuba lañu te yaa fii sëriñ tuuba teyit muy lenn ci waa raabitatul madaaris alxuraan yi muy farxu tuuba nga xam ne li mu lëkkale ci ay xaliya war na mat ñaar fukk ak lu topp sëriñ xaali jaxate jiite ko am na farxu mbàkke bawal ak daaru salaam ak njaareem moom it sëñ basiiru jàng moo ko jiite ak daaru moxti sëñ muudu mbàkke njaay moo ko jiite ñoo àndandoo teew fii fi sa kanam di yeesal seenu jaayante ak seen pasteef ci sëriñ Touba di ko yeesal ci yow ni ko taali bi yépp baaxoo di defe fas yéene topp sa gannaaw di la jàppale ci liggéey bu réy bi nga sumb te muy fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci alxuraan ak xam-xam loo ci yéene lu mu rëy rëy yàlla na nga ci daje tawfeexi sun boroom ak ndimbalam lu kawe sa njort noo ngi teew teewale mboolam ñi bokk ci raabita bi ci biir réew mi ndax ñoom ñépp ñoo amoon yéene ànd ak nun siyaare bi ndax noo bokk ak bëgg bokk ay xalaat muy luy yëkkati téere bi ak lu ko gën a ñoŋal ndax moo mbooloo mi loolu moo ko sosoon ci jamonoy sëriñ saaliwu yàlla yàlla yokk ay leeram te dolli ko ay ngërëm ci kër sëriñ ba Basiiru Mbàkke moom sëriñ Faadilu foofa la soso woon moom kii sëriñ saaliwu daanaanu sant njàngum alxuraan ak yëgle ko ci biir réew mi ak bitim réew ba ci jamonoy alxaaji baara muy doxe noonu yàlla na nu leen yàlla fayal ngën ji pay mu boole nu ak yow nga taxaw nu bu baax ànd ak nun saa su ne nga di nu wax wax leen ma nu ngeen ko bëggee mbooloo mépp bu seen bu seen bët xonqee seenu xel yow lay jëkk a daj ba jamono sëriñ Siidil Muxtaar yalna na yàlla yokk ay leeram nga gën koo feddali yëg nañu ko bu baax mbooloo mi ñi ngi gërëm ak sant sab taxawaay di la ñaanal nga yàgg fi lool ci lu yàggul rek gannaaw bi sëriñ bi wàccee ab liggéey ñëw nañu fi ànd ak lenn ci waa rabita bi ci turu mbooloo mi di la ko siyaare ak di dénkaane sunu bopp ak di dénkaane mbooloo mi ñu ne ko baaxoo di defe ak ku fi toogal sëriñ tubaa gën laa sant yit ci boole gi nu gi ñu nu boole woon nga wax ne nu booba dañu ma yilif di ma jox ndigal tey nag kenn laa ci yéen lu ngeen ma wax danaa ko def loolu mooy saw doxin li koy firndeel mooy yëngu-yëngu yi xew bu yàggut muy kilifay àdduna yi ak ñi ñu seqal réew mi te bu gën a te mu gën a soxal waa daara te mooy projet de loi boobu bi nguur gi tëral jamono sëñ Sidil Muxtaar bëggoon ko wote te muy luy gàllankoor liggéeyu daara ba ñu ko yëgalee sëriñ Sidil Muxtaar wax ko la muy jur mu ne loolu sama bakkan laa ci teg daara nañu ko bàyyi ni ko mag ñi bàyyi woon bi mu koy wax maa ngi toog man ak sëriñ Abdou Samad moom sëriñ bu mu daldi wax ne danaa ci yónnee gannaaw ba ba Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir wax na ma ne ma seen mbir ma teg nañ ko fi suuf sëriñ bi yónni woon na ma ca ba ci fan yi ñu yëkkatiwaat ko déggoo ca ak ñañ ca déggoon ba ne dañ koy wate ba nga ba nga ko yégee nga woolu sëriñ xaali jaxate laaj ko mbir mi nu mu demee mu wax la la ca xam ak fa ci mbooloo mu nekk nga ne ko baax na loolu moom dama ci daal di taxaw danaa ca yónnee yëg nañu ne taxaw nga ca bu baax ndax président génn na wax ak mbooloo mi ne dossier bi teg nañ ko fi suuf jëwriñam ji mu toftal ci boppam wax na ko kon sëriñ bi jërëjëf yàlla nga yàgg fi sunu kanam li ci ko mooy mbooloo mi muy waaraabi te bi seenub taxawaay ak seenub gis-gis ci dossier bi mooy ñoom de néewuñu nañu dindi lii néewuñu nañu dindi laa dégluwuñu it li ci lor daara dindi nañ ko ñoom daal dañoo wax ne loole nguur gi tënk namm ca la ca namm ba koo yóbbu ca pénc ma ndawi réew mi wate ko nee nañu loolu téere bi ba mu ca bokk nañ ko fi bàyyi mooy seen xalaat démb mooy seen xalaat tey te boo liggéey incha allah mooy doon seen xalaat te sëriñ bi foofu ñu nekk njabootuk sëriñ tubaa gépp foofu la ñu nekk taalibe yi sëriñ tubaa yépp foofu la ñu nekk ndax ñoom amuñu kudul sëriñ tubaa mooy seen yaakaar tey ak ëllëg te xam nañu mu baax diggante sëriñ tubaa ak alquran mooy ndaj xolam mooy ndaxañ téefam mooy ab toolam mooy wirdam mooy am koomam mooy ab xaritam mooy wéttalam di soppem mooy léppam dundam gépp ci liggéeyal alxuraan ci la ko jeexal li mu def ci alxuraan bët mën cee tege ba alxuraan wàccee ba léegi lu mel ne moom mësula am ci kaw suuf te moom kii sëriñ bi dafa dénkaane woon ne jàpp leen ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dëgër fab alxuraan ñage ko lu taxaw ca gannaaw ñag ba woo leen bu leen ko wuyu seytaane la lu ne cirib fekk leen ci biir ñag bi bàyyi leen ko ak man kon sëriñ bi mbir maango bu ñu bëggee jàmm ci seen bopp mbaa ñu bëggal ko réew mi alxuraan sëriñ Tuubaa ji nañu ko bàyyi ndax kat bu ñu ko defut lu leen dal bu mu leen bett liggéey bu sell bi sëriñ bi liggéey ci alxuraan ci digganteem ak boroomam sunu boroom du seetaan kenn di ko xajamal te lu ñu ko te li ñu ko bëgg lëkkaleel mooy li mooy lim gënoon a sib kon sëriñ bi jërëjëf yàgg ngaa dalal sunum xel sunu yaakaar gën naa dëgër rafet na njorto bu baax xam na ne boo nekkee fi sunu kanam li nuy regal dunu ko gis ndax naka jekk yaa doonoon sunu jëwriñ tay Serigne Touba yow la dénk tol bi dafa am wenn beuyit ci nooru daare ni wa xamne ne ak Serigne Touba li ha lisanu halam da ci waxante ak yow ndax ba ko Serigne Touba di wax boba kenn ci non fekkiwu wuko wante bu ko waxon tay ji dajje ak limu dajel xel yep ci yow lay dem muy waccal bi jahil muntaqa hayati riayat al fil ayati l bi jahil muntaqa hayati rihayatal qur'ani fil ayati loolu leer na nañ leneen la ci dolliku mooy am na rafet njort bu baax am na yaakaar ju dër dëgër ne bu nu nekkee ci sa gannaaw te ci tee bi téere bi te boolewuñ ko ak dara lu nu bëgg suñ borom danañ ca fekk seen barke ndax jamonoy sëriñ saaliwu yal na ko yàlla yokk ay leer dafa am suñu menn mbokkum sëriñ daara mu ñu téye jàpp naa ne mi ngi ci mbooloo mi mbaa ay bokkam ñi ngi fi ba ñu demee ci sëriñ ba yëgal ko ko daf noo wax ne danaa ci wax waaye su ngeen demee na ngeen ñaan ba nu ca jógee nu daal di daje waxtaan naka la ñuy war a def ñu ne nañ jàpp bis sàng muy bisum ñaan suñu ñaanee ba noppi nañu yëngatu wane sunu naqar ci li nga xam ne moo xew ci daara bi ba ko sëriñ bi yëgee daf noo woolu fekk bañ koy daataan waajal mboolem kilifa yi nga xam ne mooy kilifa àdduna yi fi jege muy préfet ak sous préfet gouverneur ku ne yónnee nañ ko ab leetar xamal ko yëgal ko ne ko lii la ñuy waaj a def ba ko sëriñ bi yëgee dafa wax ne na ngeen fomm loolu yi ngeen doon waaja def ku ngeen ko yëgalu na ngeen ko wan ne ne fomm nañ ko su ngeen ca noppee ngeen dikk wuy ma nu daal di def noonee mu nu waxoon daal di dikk wuy si ko ba mu ñëwee mu ne loolu yi ngeen di sàkku yónnee naa ca yaakaar naa daañ ko teg fi suuf mbaa su fekkee teguñu ko fi suuf su ëllëgee su ngeen dee yëngu mbaa ngeen di jàng loola maa ngi yéen noo koy ànd sëriñ Abibu Saaxu mi keroog fa la ko fekk mu ne ko sëriñ bi kon danoo bëggoon a wéyal njàngum alxuraan mi mu ne loolu lii laa ragal ngeen am lu leen naqari jàng alxuraan ñemewuma ko su ñëwee la muy jur mën naa ab seeni loxo kon sëriñ bi donc yaa ngoog ñu ngi lay déglu foofu la ñu nekk te duñ bàyyi téere bi seen bakkan lañ ci teg ba ba ñuy faatu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. seen yitte ji sëriñ bi mu ne seen yitte ji. ak nii ngeen ko defee. ak nii ngeen ko defee. dama fekk sama bopp. nee da koo fekk ci boppam. kon noo koy ànd. nee kon noo koy ànd. lu ngeen ci ragal. nee na lu ngeen ci ragal. noo ko bokk. noo koy bokk. noo ko bokk ragal. noo ko bokk ragal. lu ngeen ci bëgg. lu ci bëgg. noo ko bokk. noo bokk. noo koy xel mu dal nag. te am ca xel mu dal nag. ndax lu nu lu bëgg a xañ loolu. ndax lu nu bëgg a xañ loolu. xañ nu sunuy bakkan moo ko gën bakkan moo koy gën a yomb. kon nag pësteef boobu rek. nee na kon nag pësteef boobu rek. yitte jooju. jooju. dogu googu. dogu googu moom rek nga ci am solo. kon noonu rek la demee. kon noonu rek la demee. wax ji jërul guddal. wax ji jërul guddal. Bachir na ko naññi. nee bu baax dégg na ko bu baax a baax a baax. waaye nee na ni mu ko waxee rek. ni ngeen ko nee na ni ko waxee rek ni ngeen ko fekkee ci boppam. xelam. sama xol rek la deme gisuma leneen. nee na gisul ki nga xam ne mooy sunu mooy sunu wéeraay. kon ki nga xam ne mooy sunu wéeruwaay. ci biir ak ci bitti. ci jii ak ëllëg. tey jii ak ëllëg. muy sëriñ bi. muy sëriñ bi. doy na nu sëkk. doy na nu sëkk. lu nu ci lépp lu nu bëgg. doy na nu sëkk. ci lépp lu nu ragal. ci noppi na ci nun noppi na ci nun lu mat a fàggu. lu mat na ko. te jubóo na ceeg boromam. te boromam moo ko fi nekkal. kon na seen xel daal bu baax a kon na seen xel daal bu baax. li ci am solo rek mooy nan gën a góor góor rek. nan ci nekk rek. te sax ci dàkk. jërëjëf neen rek moo ci am solo. tabaarakallah jërëjëf sëriñ daara yi nga xam ne dañoo bëgg ay itam. na sëriñ daara yi nga xam ne dañoo bëgg ay pàkk itam. nañu seet lim bi mu war a toll. mu xam ko. incha allah ñu taxaw ci. nee na boobaa dinañ ci taxaw incha allah. tabaarakallah jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf